ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi te àll bi ci kilifteefu Serigne si mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi te Cheikh Mouhamadou Mountakha jël liggéeyu dëkk bi di commune bi ak village yu tegaat ko ci loxoom mu tegaat dëkk bi mooy Serigne Abdoul Ahad yooyu ñëpp ngeen doon ngeen nekk coono kilifteem kon ñu ngi leen di nuyu seen tur di rafetlu bu baax seen taxawaay ak seen yitte ak seen posture ndax fii ñu toog kat fii laa toogoon xamal leen ne leen ndegam dañoo jot liggéey ci sëriñ bi mu Cheikh Mamadou Mountakha jot jotaat liggéey ci sëriñ si bi ñu ko dénk mu boolewaat maag sëriñ Abdou Lahad ak ñoom kon nag ma ne la ma ca war mooy def ko yitte fa seen itam jiitoo ko ci samay soxla ndax Touba dëkkub sëriñ bi de sëriñ Touba ñaan na ko suñu borom lépp te suñu borom may na ko moom kon ki am tawféex rek mooy ki yàlla dimbale ba nga bokk ci fexe ba loolu sotti kon nag bu ñu ciy liggéeyloo ñu ni tam waruñu am guddi waruñu am bëccëg moo tax lii sëñ Abdou Lahad wax léegi loolu mooy li ñu fi bàyyi soxlay njaboot bi ak soxlay taalib yi li tax sëriñ bi ngi fi ci seen kanam it mooy bëgg ñu jege leen di xam seen yitte lépp luñ ci war taxaw ji moo tax itam liñ ci man ak liñ ci xalaat lépp duñ ko def rawatina lu jëm ci wàllu courant ba bu yàggut wax naa ko seen kilifa yi ci dikkoon ba incha allah mën naa am fii ak déwén defaat ay jéego yu rek doot defaat def nañ ci ay jéego yu ren ren mooy wàllu ndox leeral naa ko fa yi dégg ngeen li ci toll li ci topp ba ca des mooy wàllu tënk yi lépp ci soxla jiitu ak marché bi kon loolu. bokk na ci seeni soxla ba ca des it li xam ne war ngeen ko def yéen itam ni ko suñu bu waxee léegi rek noonu la demee bañ leen joxe ndigal ba tey yëg nañ ne kenn ku ci ne gën gi caa farluwaat gën koo joxaat yitte ngir fexe ba sàmmule dëkk bi sëriñ kon na ma leen ko sant woon ne fas naa yéene ñetti weer yu jot bii sax dafa tombé nag mu dugg ci màggal Tuubaa bi ne kon doon la gën a yaatu wala ma seet ci benn quartier sama defa ko waaye nag comme yàlla def na mu xati ma ne lu mu xat-xat nañ fexe ba loolu moom bu mu jënd seen yitte itam li képp ñu ma ko jot bi lépp itam ñu ngi koy dajale bind ko fexe ba lépp mën da saafandoo ci genn genn wax waaye dinañ fexe ba seet loolu ci xam ne xam nañ ni mën naa saafara ko chance yi def lu jëmale da saafara rek ñu ngi ko def ndànk-ndànk ak di ko soññee ka fàttali yéen itam ñu ngi leen di sant nag ci seen quartier yi Bagi ngeen gën ci agur gur xam ne ku ci na xam sering serigne touba dafa teew serigne bi dafa kon na am fulla am fayda fexe ba quartier ba ngi def mu fexe ba dara lu naqari serigne bi bu mu fa am bu ko bu ko ñepp defé rek mu daal lepp daal di wax ndax ku ne boy kon yeen ni nekk ci délégué de quartier ak chef de village ku ci ne ma fexe ba ab quartier mu du ko sam di lii yàlla tere te Sëriñ Tuubaa tere ko bañ ko am li nga xam ne moo war may dëkk bi itam ngeen fexe ba di ko soññ loolu mooy la jiitu ba ca des it am na loo xam ne bari na lool ay coow mooy wàllu réserve yi réserve yi itam ngeen di ko gën a sàmm ndax loolu itam kat bokk na ci li nga xam ne mooy li njariñu li ñëpp war a bokk ndax réserve bu ngeen ko déggee mooy fu dëkk di nooyee wala foo xam ne tey bu nee poste santé war na fa am wala jàkka wala marché wala lu ñu demee wala loo xam ne njariñu nit ñi la ñu fexe ba def ko foofu kon loolu itam lu lu mat a sàmm Serigne Saliou xam ngeen ne ku ci amoon ak farlu ak ñoroon ko lool ba daa ko lijjati boppam ñu ko fi wuti ginnaaw bi yëpp itam ci loolu lañ ne kon yéen tam da ngeen xam ne loolu ndénkaan la ci yéen beneen ba ca dolli ko watit mooy dëkk bi di ko Cheikh Mamadou Fadil di natt te def loolu ko Serigne Cheikh Gaynde Fatma xam ngeen ne mbedd yi mbedd yëpp yu mag la woon yi 28 la yi nekk 30 ba Serigne Abdou Lahad Mbacké ñëwee ci seen corniche ni mu demee nekk soixante dix wër dëkk bi Serigne Saliou bi mu dikkee itam noonu la ko wéyalaat ba def fi li ñuy wax cent vingt mètres cent vingt mètres bi rek moo wër dëkk bépp nga xam ne loolu néew na ci dëkk yi foo ko gis ci àdduna kon loolu ñoom dañoo jiitu jamono ak ilham gi leen sëriñ bi di ilham moo leen ko may ba tax fañ ci àgg ci xalaat sax ak àdduna ak àdduna àgg kon Serigne Saliou ba mu koy xalaat ngir bëggoon dëkk ji gën a nosu gën a tegu ci moo tax mu def ko gis nañ ne nag bari na ci foo xam ne am na ay gàllankoor ndax am na ñoo xam ne jaawal nañ ko ba dagg ko ba mbedd ma di bëgg a baarewu loolu nag kon yéen ñi nga xam ne yéen dafa ne ku mu ci jaar ci barabam rek na feex ba de ba sàmm ko lu mu ci gisati nag ci loo xam ne xam na ne mënu ci dara mu fexe ba àggale ko ci sëñ bi daal bi nga xam ne mooy seen kilifa moom itam bu fekkente lu mën a saafara la ma ko waxee woon du agsi ci bu ko teel rek wax ji door agsi ci kon loolu rek daa am ci lu ma leen di fàtte di soñu ngeen xam ne sëriñ bi daal xelamañ ci yéen xolamañ ci yéen ak ñaanam itam mu ngi ci yéen fu ngeen nekk itam xam nañ ndigal ma leen fay kon ngeen gën a góorgóorlu di leen sant bu baax di leen ñaanal ci liggéey bi itam ngeen day cee tawfeex day cee ngërëm suñu tudd asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñun ñoom ñëpp daal kon ni ma ko waxoon rek kenn ku ci nekk barab ba nga ne doxinu àdduna ak nit ñi nag seen i seen bëgg-bëgg xam nañ ko xam nañ ni jamono bindoo waaye la Serigne Saliou Mbacke waxoon rek eh, yéen di joxe bi dafa jiitu laaj bi moo tax du leen ba may wax it yéen bokku leen ci waaye li kenn ku ci nekk daanaka li li li ngay def ku jafe-jafe ku nekk fa nga ne am na ay jafe-jafe. yoo xam ne buñ la joxoon tey mën nga ne ah lii ak lii ak lii moo soxla nañ ko wala bëgg nañ waaye nag ci saw doxin yi nga leen a jiitu ndax yaa rek la yoon wi làmp yi ndox ma te loolu yëpp sa jiite bët bi sa ci nga xëy di ci gol ba daanaka jàmmal li la ko war a wax yow jiitu bi leen ci ndax ba ci demoo nga ñëw fii ci wax tali ci yoon yi di ci wax ñu yor yoon yi ak ñu yor ndoxam naan ñu yor ndoxam ndoxam taw bi ñëpp bët bu set yaa ngi liñ la war a wax jiitu nga leen ci faj gi ak saafara gi ak topp topp kon amul dara luñ lay wax loolu dañ naan rek lii de li nga am ba bi nga bëgg mu mel li may wax suñu borom may la kàtt na tam ci dara jee xalifa général bi nga xam ne moom la ñuy liggéey waaye ci doy suñu dawlin bi nga xam ne moo ñu yëkkati teg ci seen loxo bisa mencinta aku lah Dia leku amain yang ku bagi. Saya saya saya dijambat. Saya yuk cili ni jambat aku tu. Thank you.